nga bis bi ñëw tas gataay ziar a ngi si jàmm imam dama bàyyi kenn na tey micro bi rek. na kenn tey micro bi rek. na kenn tey micro bi rek. yow yaay góor gi yaa ëpp doole. yow da ngay filmé jëlal da ngay jàng li ngay def rek. jox na ko quelque son. test test micro waaw. noo ngi nuyu mbooleem ñi seetaan ak fu ñu mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew. tey jii di le lañ ñëwoon fii ci tribunal bu Dakar doon déposé plainte ci procureur de la République plainte bi ñu jëmee ko ci ku ñuy tuddee Ahmed Cissé turam sellu lool santam sellu lool waaye jëfam salte lool ay waxam salte lool waxam yi nag yàgg naa salte mosuñoo jóg yàgg naa wax wax yu bon di fésal ne sax moom day def lu bon nëbbu ko mosuñoo jóg daa am na yoo xam ne nit ki la concerné donte bu demee ba wax ko ci public concerné na ñëpp waaye am na loo xam ne nii degré gravité bi dafa fu muy toll bu fekkoon tamit day def ay attaque personnelle ña mu attaqué la concerné pour ñu jëflante kook moom waaye dafa laal laalaaj loo xam ne kenn waru ko laal mooy sunu téere bii nga xam ne nii sunu borom nee na laa yaatihi l baatilu min bayni yadayhi wala min xalfi yàlla ne na téere bi lu dul dëgg amu ci téere bi neen amu ci te neen mënu koo songu bàyyeekoo ci kanam wala mu bàyyeekoo ci ginnaaw sunu borom ne téere bi lépp lu ci nekk dëgg la Ahmed Cissé taxaw ne téere bi am na lu ci nekk loo xam ne du dëgg jël waxu yàlla di ko tollale ak taaxuraan ko xam taaxuraan ci sunu société ak ña ko daan def ak terme yu bon yanuy utiliser ci ngay xam gravité wax ji mais ku xamul taaxuraan mën nga ne ah taaxuraan waxu wolof la rek mais taaxuraan ku ko xam dèjà moom nitu taaxuraan la moom ndax yi muy wax moom la taaxuraan kat yi daan wax pour nga définiral nit ñi lan mooy taaxuraan mooy wax yu vulgaire yu muy wax ci wàllu sexualité ak yu ni mel taaxuraan kat yi wax yu mel noonu lañ daan wax léegi naka nga mën a jëlee waxu borom asamaan ak suuf nga koy tollalee ak taaxuraan ak yeneen yim ci toftal yëpp loolu mooy lu gàtt rek luñ ci mën a tudd bi mu waxee wax ji nag li ñuy njëkk a ñaawlu mooy ñi ko fésal dèjà ñooñu ci kanam lañ leen di waajal mi ngi ñëw mooy site internet bi nga xam ne walla seen YouTube bi nga xam ne moo ko dékk mikorom muy saaga lislaam di saaga alquran di weddi suñu borom di wax seen YouTube boobu balaa ñoo jàll bëggi vie jaru ko bëggi abonné jaru ko monétisation booy gagné ay millions jaru ko te ñi ngi avertir bépp site internet ak bépp seen YouTube buy dékk Ahmed Cissé micro ne ko danañ dal ci kaw collectif aar daara di kuréel boo xam ne dafa dajale kuréelu sëriñ daara yu bari dajale ay sëriñu daara yu bari dajale sax ñoo xam ne ay soppe alquranul kërim lañ nekkuñu ay sëriñu daara ñoom ñoo ñëwoon tey doon déposé plainte kuréel bi ni mu tudd moo tax ñu jug mooy aar daara la tudd kuy wax aar daara nag yaa ngi waxaale aar alquranul karim donte alquran sunu borom moo koy aaral boppam moo ne inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafiduun nun yàlla ñoo wàccee alquran ñoo koy aaral sunu bopp mais sunu borom du defal kenn lu mu man li nga mënul la lay defal ñun ñim fi bàyyi ñu nekk ay jullit bu amee lu nu wax jëmee ko ci alquran buñ ko waxee woon ba gannaaw euh, màkka wala ñu waxee ko ba gannaaw États-Unis wala ba gannaaw Europe ñu nekk fii Sénégal danañ ko dénoncer Ahmed Cissé balaa ñu doon xam gravité waxam ji mu waxoon ko ci araab wala mu waxoon ko ci anglais danañ gis ay jullit yu nekk ci àdduna bi ci saa si danañ def ay réaction waaye gannaaw fii la ko waxee fi mu ko waxee nu ngi fi nu ngi fi réew mi quatre vingt pour cent ay musulman moo fi nekk ñu dul ay musulman sax jëf ji naqari na leen neexu leen ndax ay woy gëm lañu kon li jiitu ci li ñuy def ci ay jéego mooy lii réew mi dafa am nu mu tëddee bu réew mu amutoon nu mu tëddee Ahmed Cissé bi mu waxee lii du fanaan këram. plainte bi moo nekk nii. mi ngi nii déposé nañ ko ci procureur ba mu defal nu décharge. lii mooy lu citoyen war a def bu amee lu ko métti loo xam ne def nañu ko mais bu lii amutoon kon Ahmed Cissé ma ne la du fanaan këram moo tax ñu ñëw nag ngir avertir gouvernement du Sénégal wax ak président de la République. na jël responsabilité am ci lii ministre de la justice na jël responsabilité am ci lii tey suma taxawoon fii ci buntu tribunal bi saaga constitution bi duma fanaan sama kër te Cheikhul Hadj Abdoul Aziz dafa waxoon ne wamaa lanaa code siwal quraani fa gayruhu fa huwa cotu seytaane ñun amuñu benn code bu dul alquranul karim lu dul alquran cotu seytaane la alquran jooju nga xam ne mooy ngën ji code di waxu sunu borom subhaanahu wa taala moom la Ahmed am na lu ci nekk loo xam ne du dëkk su waxoon leen ni le Macky Sall ñaata ay nit lañ fi jàpp ngir dañoo wax kàddu gu ñaaw ci président Macky Sall article quatre-vingt dal ci seen kaw. ñi ngi demandé bu amee article milliard bu war a dal ci kaw Ahmed na dal ci kaw. Oustaz Sarr est-ce que est-ce que ay nagam si nañ est que am na ñuy wax wax ju mel noonu ndax wér naam wérul loolu moom moo koy lijjante moo ki mbokkam ndax wér naam wérul loolu moo koy lijjante bu wérul. na ko ay mbokkam jëng yóbbu ko faje ko mu bàyyi fi sunu diine bàyyi fi sunu alxuraan bàyyi fi sunu ngëm-ngëm loolu nit ñi ñi ngi koy wax ndax wér naam wérul ñoom ñoo xam nañ ko lijjante ak moom mais bu dee wérul procureur moo nuy wax ndax wér naam wérul léegi su fekkente ne daan gi euh, plainte bi ngeen ko def nii léegi bu weesoo sanction bi la ko diine lan mooy atteem ci wàllu diine moom Ahmed Cissé ci wàllu diine ñi ci war a wax ci wàllu diine danañ ci wax place bi dañuy ñëw taxaw ngir wax ak réew mi wax ak président de la république wax ak ministre de la justice wax ak de la république. ne leen jëleen seeni seen responsabilité su fekkoon ne mbir mi doxee na ni mu war a doxee plainte du jëpp. am na loo xam ne buñ ko waxoon jëmee ko ci président de la république immédiatement le procureur de la république di autosaisiru dal ci kaw kooku loolu lañ doon seenu bu fekkoon mbir jaar na ni mu war a jaar. kon ñun jullitu Sénégal yi ana lan lañ ñu ameel ñun ci réew mi. te lii nag bu fekkee saafara ko ah. danañ jug de te fii ak ngoon danañ daje association imam yi sëriñ daara yi kuréel yu bari danañ daje waxtaan danañ leen woowaat wax leen yan action la ñuy waajal ci kanam am na loo xam ne nag balaa ñu cee yegg dañoo bëgg procureur nu mu gën a gaawee ñu ngi koy ñaan na autosaisir na jël ay responsabilité benn plainte bi lañ déposé beneen pelent bi ñu ngi koy yóbbu cybercriminalité ndax wax ji léegi nii lañ koy yóbbu bu ñu fi jógee nii fa lañ jëm muy cybercriminalité ndax wax ji fi mu ko waxee wàllu ci am na loo xam ne seen liggéey la danañ ko fa yóbbu waaye loolu noonu yëpp ki ci gën a gaaw mooy procureur de la république na jël responsabilité am ci Ahmed Cissé ndax am na ñu ma xam ñoo xam ne ni tey bu ñu dajeek Ahmed Cissé danañ jël bakkanam bu ñu dajeek Ahmed Cissé danañu jël bakkanam ndax la mu laal dafa foor ci ñoom foor goo xam ne nii dee wuute ko moom moo leen gën a balaa ñoo yegg ci loolu nag muy jur trouble ordre public ñi nga xam ne ñoom lañ dénk loolu noonu le nañ jël seeni responsabilité ngir seral liy métti ci xolu jullit. ma nga xam ne moom mooy ñu gis naa ko woon ginnaaw lobby yi gën a mag yi koy jàppale mooy tele yi dèjà yéen média yi yéen ñi koy dékk micro bu ñuy wax lobby bi gën a mag mooy képp kuy jàllale kàddu Ahmed Lo complice la ak koo man ci képp kuy jàllale kàddu Ahmed ñu baal ma ci tur ma jiw complice nga ak koo man ci doon ay télé yoo xam ne nii tey nit pour ñu invité ko fa luy jafe la ñoo koy invité jox ko temps bu yaatu mu toog fa di wax lu ko neex seetaan naa ko ci télé ñu invité ko tele bu mag mu toog ne man du ma jullit man muumin laa ñu ne ko ndax da nga julli mu ne bu ma ko sentiree tele bi bàyyi loolu mu jàll mais ñooñu ay complice lañu leneen nag lu nekk ci ginnaaw loolu yàlla moo xam ak moom ak ñam ko séqal waaye li ñu mën a wax mooy koo xam ne yaa ngi ci contrôle judiciaire mais gaaw na pour ñu régler ay problème lan la waxoon baax na ñu fàttali ko sénégalais yi ba taxoon ñu jàpp ko daf ne woon nañu jël ay préservatif di ko séddale ci jumaa yi imaam yi di xutba di ci waxtaan ak nit ñi ndax njaaloo gi dafa bari ñu mën a mucc ci ay feebar lii la waxoon ba tax ñu jël ko jàpp ko am na vidéo boo xam ne dafay félicité góor jigéen LGBT yi day félicité seen kuréel vidéo bi ñu ngi ko yor fii nii ku mel noonu nag façon la ci société dèjà moom ñu ngi wax ne dëkk fi Gambie la mais sëñ bi ku dëkkul Sénégal nekk Gambie ñëw Sénégal nar ñoo lëmbe mel ni réew mi dafa amul ñu fi nekk ñoo xam ne ay góor lañu ay góor a ngi fi de te lii bu ko procureur réglé wul danañ ko saafara ci neneen te bëgguñu ñu yegg loolu nag lañ amoon lu ñuy wax ak yéen li ci des nag incha allahu taala tey ci ngoon am nañu réunion bu ñuy amal ñu wax yéen jéego moo ci topp bu laajee marche nationale hmm. danañ ko def bu laajee rassemblement danañ ko def lu mu laaj te yoonu réew mi may ñu ko danañu ko def ngir ñu arrêté waa ji nii